Keba ya lan moo tax nga def li, lan moo la jaral lii moo da ngay wax ba rek mais xam nga do doo fi jëlee benn information. xolal xolal bu ma yëngal su ma la gëtamee di rot su la gësamee di nga waddal ay baat wax ma kan moo la wax ma ñan ñoo def su boba la pen xam nga ma xam. ko bu nga ñëw fi nekk benn jeune bu yambar faible di stressé cas bu njëkk bu ñu jox mu nekk cas wu viol mënoo ci dara nga jàll sa ndox ba Mory man maa la formé li nekk si yow tey man maa ko ci def ndekete amoo woon benn xalaat lu jël sama place. hey suma bëgg a jël sa place. Kéba yaa bon xolu ki ñaan moo nekk sa kanam mu ngi nii di feeñ maa ngi koy gis mu ngi saxaar mu ngi nii nga foog ni ñëpp ne yow lañ mel nax nga sa bopp. Kéba lu waral nga melni waye yagon nako gis ci yow lenn mo la musoon soxal muy a bi de banque marataatu tu bossi lenn mo la soxal muy am nombol bat lenn mo la soxal muy nga nek ci kaw yak nga lépp Kéba yak nga lépp tak der yi melni yen policier yu melni yen yéen yak a dëkk bi. amatoo leen benn gëdd ci dëkk bi leen ngeen bëgg mooy kenn ku leen jox seen alal leen ngeen bëgg ku ngeen gaaral nekk ci moom dara ana seen dignité sa honneur amatuñ ci benn gëdd. fat fekk fuñ mor yi. xoolal xoolal xoolal xoolal bu ma yëngal bu ma yëngal fu ma la yëngal mais dangay wàcc wallaay tey di nga wax danaa la gësam xool ki ñaanal doon rey. Kéba xar weesu la mbote dinaa la mbëkk dinaa la jaxase wallaay dinaa la jaxase. jàppale Keba. Keba yakin nga sa Karena dengan danga ma virus Dina dugu ci sa yaram dinaa la jaxase nga ne bëggoo wax Kéba nga ne sa kàddu danga koo dénk moom sa telefon. Dina ci génn ay kàddu yu rot bal la daaj la buy bu dee ko dinaa ci am lima ma bëgg. commissaire lay xaar. xam nga ni bu luy metti si yow lay jugee. dana metti ci sa côté mbaa seen côté pareeguma ak yow pareeguma ak yéen. qu'il aille se faire foutre. Marodi, inspiré par vos émotions.